gërëm nañu rafetlu seen àndina di net Senbuzz TV mbokk internet yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci doon mbégte saa su ne rédacteur u euh, rédaction u di àndoog yéen ci ay jotaay yoo xam ni yu ngeen di soxla la ci seen nekkin ak lépp lu aju ci seen ci seen dundin di li sabab tey euh, beneen boroom xam-xam bu ñu seet si di euh, fàcckat waaye également di ko xam ni doomu Nigéria la macha allah nekk fii ci Géejawaay ñu leen di xamle ak moom loolu di li sabab rédaction u Senbuzz seet si ko Mouhamed Prince Benjamin mooy suñu gan tey sur la chaîne des leaders Senbuzz TV Mouhamed ñu ngi lay nuyu. maa ngi waa senegal yëpp ku nekk am na mu santé sama ñaari waajoo maa ngi nuyu sama sëriñ sëriñ Aboukarim Mbacke sëriñ Mountakha maa ngi nuyu sama talibe yëpp Ousmane Sagna Abou Konatré Ismaïla Camara Lada Gueye numéro 2 Bala Gueye numéro 2 euh, mbëri jeeje waay yëpp. ku nekk an la mu sant asalaamaaleykum mbokku jullit ji mbokku talibe mbokku Sénégal. Euh, rédaction seen bés aussi gëstu gis ni tamit macha allah ku yàlla may euh, say relation yu bëree bëri fii ci Sénégal nga ah, ay kilifa yu bëree bëri tamit yàlla def nga am ak ñoom relation loolu lu ko waral euh, da nga ñëw am choix Sénégal nangul kilifa diine yi fi nekk wala relation bi am sa diggante ak yenn kilifa yu mel ni sëñ Abdou Karim Mbacke borom makaarimul axlaq lu waral relation boobu ak fan la jóge. waa xam nga yoroo man ñoo Sénégal man chrétien la. Hmm. Euh, après man tuub nekk musulman Serigne Abou Karim Mbacké moo ma tuub. d'accord kon euh, mu gis euh, sëñ bi nekk borom baax. Hmm. ku nekk moom accepté ko. après man dem ziar mu Mountakha semaine bi bu passé démb laa jóge Touba sa dem yóbbu sama addiya pro màggal bi ci Serigne Abou Karim Mbacké. macha ay mbër yëpp bu nekk ci jéejewaay. ane kilifa diine aduka ku nekk bëgg na ma man bëgg na ñoom eh, ku nekk sëriñ bu bon eh, kilifa diine du nekk seen xarit may dégg ay eh, naxkaatu bu bëri bu nekk ci internet bu di ñoom fétichel la bu di ñoom jëlee na coupe coupe du monde ci Afrique yëpp mais loolu kenn du ko wax fétiche amu ay coupe du monde. loolu musul nekk ci monde yëpp fétiche la loi bëggu ko sax nit mënu génn ci internet tey moom di moom jëriñ na coupe du monde euh, def ay affaires yi boo xamante pour tiital ay niir yi. Hmm. nax doomu adama bu di dem na Nigéria dem na Mali jëre coupe de monde bu ñëw ci Afrique Nigéria moo nekk premier ci mystique. c'est nga dem ci monde yëpp Inde moo nekk premier. léegi ku nekk sénégalais bu juddu tey boo xamante liggéey sëriñ yow juru ko juddu yow jëroo ko ci sa maam ou sa baay nga génn tey commencé nax doomu adama fii bu di yow jërë na coupe du monde xanaa loolu yëpp ay fen an tappale la lekk ay xaalis doomu adama mais am na lu bari boo xamante bokku nit yi bu nekk ci Sénégal tey ñoom dafa fàtte ak xam nga nit bu mel noonu bu def ay doo dookaat yi ñoom mënul dem ci sëriñ bu mag yi parce que ruus mënul def ñoom mënul nanga ruus pour dem parce que sëriñ bu mag yi bala ñoom accepté la ci dara euh, am na lu ñoom gis ci yow mais ku nekk doo dookaat nga di yow grand féticheur la jërë nga coupe de monde foo ko jëre ku la ko may ban football compétition parce que lu yow mën na wax léegi jërë nga coupe du mooy ci football ou bien ci leneen ak leneen mais c'est pas ay ci fétiche loolu daa mën na nekk ci àdduna bi ci loolu laa la laa wax sëriñ naxkat bu nakk ci euh, Ndakaaru ou bien ci Sénégal bu nax euh, doom adama bu nekk bitim réew moodu moodu yi boo xamante ñoom sonn na ba dee su ñoom liggéey xaalis ñoom war a yónnee pro lijjanti seen avenir su ñoom yónnee yow am na ñoom boo xamante su ñoom xasu jotu sa xaalis tey ñoom la man bëri na ay moodu moodu yi bu wax ma ñoom boo mante ñoom bu di ñoom ñoom jël na ay coupe du monde sama beneen talibe woo na ma dafa yónnee ku di moom yore na coupe du monde 500000 woo ko ci téléphone di moom sembi bi yore naa 500000 moom di ok may ma 5 minutes mu jot ko bloqué ko ñoom bëri na loolu moo tax euh, Sénégal du dem. may wax euh, ay euh, nax kaati bu nekk Sénégal pour arrêter seen nax yi. parce que li yoo def tey yow du ko gis tey de suba di ko fekk. loolu moo ci nekk. alors euh, ku ni Nigéria euh, wax li nga xam ne mystique wax nga ko ah, muy euh, muy dëkk boo xam ne aussi comme ni nga ko faral di waxee rawatina li ñu baree bari ci askan wi ni leen di naxee jamono ji mooy lu jëm ci féticheur. alors da nga gis ni dafa nekk doxalin boo xam ni dafa war a dañ ko war a changer war ko xoolaat wala da nga gis ni féticheur yi dañ ko gëm maanaam dañ ko jàppee loo xam ni xëy na du liñ ko jàppee parce que nit ñu bari boo nee féticheur rek dañuy jàpp ni xëy na mooy koo xam ne dafay def lu ñaaw dafay def ay mystique noir comme ni ñu koy faral di waxee quelqu'un koo xam ne dafay dafay def loo xam ne xëy na lu yoon nanguwul la wala féticheur moom da ngay ni baaxul lu naxee nit ñi la rek ak lu ñu leen di xooxalee Mouhamed. fétiche dafa am ñaari façon. ok euh, liggéey fétiche Sénégal nee na bu neex yàlla dinaa jàpp bu naxar yàlla dinaa jàpp lu neexu yàlla du jàpp lu naxar yàlla amul dara pour naxar yàlla fetis dafa am ñaari façon première ku tuuru deret ay béy nag xar. ginaar eh, eh, pigeon an leneen an leneen loolu fétiche la ku tuuru deret pour defar doomu adama liggéey pour faju rab ou bien jinne am na ñoom boo xamante ñoom nee na ñoom ñoom mii ray jinne kenn mënoo ray jinne jine comme ngelaw la rab mu nga def négociation kenn mënu ko ray parce que ku nekk dafa am rawaane ñaari esprit bu nekk ci àdduna bi rab an rawaane sa rawaane moo moo contrôlé yow moo nekk ci biir sa yaram di yow lii baax na ou bien lii baaxoo mais rab ñaari affaire yi moom def ci vie nit yàq wësu am mariage am na ni sëriñ boo xamante buddi nit yi tey sa rab baax na gis na féticheur dëgg-dëgg am na fétiche boo xamante da nga suuru sans ray loolu fétiche pile la mais c'est pas nit mais gis na ñoom boo xamante ñoom di ñoom grand féticheur la loolu formation la ku ray nit am na fétiche dafa am ñaari façon benn formation la ñoom boo xamante bu sacrifier ay deret nit moo ñoo xamante ñoom dafa sacrifier pour àllar bu di ay ñoom dafa bëgg portefeuille magique xam nga fétiche ay musulman ay chrétien ku nekk mii def fétiche mais ça dépend sa yoon ci loolu ça dépend bam façon fétiche yaay def parce que dafa am différence façon fétiche du liggéey bu bon loolu la am pour wax Sénégal tey. alors fétiche du du liggéey bu bon euh, léegi mu fréquent lool euh, Mouhamed Benjamin ñu fàttali mook moo ko internetu seen bésine Mouhamed Prince Benjamin doomu Nigéria la nekk fii ci ci Géejawaay euh, nekk également koo xam ni tradipraticien la di yëngu tamit ci li nga xam ne mooy seet muy lu fréquent jamono ji ngay faral di dégg wala ngay gis ay sëriñ diw bu ne féticheur la koo xam ni xëy na day xëy rek comme ni nga ko waxee sa biir wax jàngul wala amul maam boo xam ni xëy na dafa daan yëngatu ci li nga xam ne mooy mbiru faj seet xëy di ko mbubboo am na ci koo xam ne sax récemment certainement du ñàkk signalé nañ la ko euh, xaw na jël en tout cas man bi ma la gisee look boobu la gis ci yow lan ngay wax askan wi ci ñenn ñi nga xam ne dañuy toog rek di mbubb woon i féticheur la yor place boo xam ne xëy na dañuy teg ay choses yoo xam ne xëy na ki xamul wala sénégalais bi nga xamee ne amul expérience day am problème pour ràññee kan mooy Mouhamed Benjamin ak kan mooy ki nga xamee ne xëy na dafay naxee léegi mu wax yow beneen affaire yi dinaa commencé ci ci liggéey axuraan am na ñoom boo xamante tey ñoom du séréen ñoom naxkaata la photocopie ñoom liggéey ci par exemple prince Mohamed liggéey bu fi ni ñoom dem photocopie ko jëre ko bu jaay am na sëriñ bu bëri tey bu ñëw ci man sëm bi sama sama kii am na sama beneen eh, xarit bu nekk bitim réew bi sama frère dafa feebar grave la laa bëgg pour faj ko ndakete loolu amu am na ku ko moom lii laa soxla moom ñoo fi pour jëre grave pour jaay gis nga mais ku nekk ci internet tey boo xamante premier danga doon liggéey machon ou bien euh, dangaa nekkoon yow amul liggéeyal nga dem bu seetaan ay lu xew ci Nollywood film Nollywood. parce que am na ñoom boo xamante su ñoom mii seetaan film Nollywood ñoom xalaat yëpp dafa nekk ci àdduna les déedéet film film la nit moo ko binde nga di yow grand féticheur la yow jërë nga coupe du euh, bu ñëw ci Sénégal yow roi roi fan roi ci fétiche fétiche amoo roi. roi amu ci fétiche si yow di yow da nga contrôle ji am na ñoom boo xamante bu di ñoom fétiche la ñoom di ñoom am na ay cent cinquante jinne jinne bi dafa liggée bi fan jinne bi foo ko gisee si yow gis jinne de nga takaw nga def euh, leneen bagage boo xamante si sa bët yi ou ay lii ay lii pro nax ndax doomu adama mais beneen affaire yi moo ci nekk jou gouvernement am na koo xamante da nga ko nax loolu moo nekk sa day nax ci adduna bi parce que am na bopp boo xamante kenn du ko liggéeyal. am na bopp boo xamante kenn du ko laar. maa ngi wax ay ñoom bu di ñoom féticheur la ñoom jërë na coupe du monde a ah, def na lii def na la pour ñoom arrêté seen tappale yi. si yow amu dolli dem ci Serigne Aboukarim Mbacké mu ñaanal la nga am buzz. si yow si yow yaay wuta buzz dangaa bëgg lu dina am dem ci mu Mountakha Serigne bu mag yi boo xamante ñoom am na tuur ñoom tufli sa loko sa affaire yi commencé baax parce que gis nga si yow lekk piment léegi du saf léegi suba ou bien après yow lekk nga ko ba pare mu commencé saaf. il faut féticheur yi ñoom di ñoom féticheur la nangam nangam Sénégal mënu fétiche dëgg-dëgg Nigéria moo ko moom. léegi ku jugoo fii Sénégal di moom dem na Nigéria jëre coupe du monde ci fétiche xanaa moom dafa dof loolu tàppale la amoo roi amoo ay jëre na coupe ci fétiche amu coupe. c'est comme docteur boo xamante docteur bu faju ci hôpital yaay faju sa morom mii faju yow mënu génn tey nga di yow jërë nga coupe pour fajoo ci hôpital euh, da la jàmb ou bien pour principal loolu daa mun na nekk li yoo jàng keneen jàng bosam loolu moo ci nekk parce que am na feeb ba am na ñoom boo xamante tey ñoom di dem na ci diw dem na fu nekk mënuma gis résultat am na hôpital boo xam feeba nit dinaa feeba léegi nga yóbbu ko principal ñoom di déedéet yóbbu ko France France moo war faj ko c'est la même ci liggéey mystique. loolu la am pour wax Sénégal. alors mais ku ñëw fii nii. aju moom faju na. ay protéger mariage defar mariage sama lii sama la koo xamante bi daan crise rabu bi jine ci loolu laa dox fii Sénégal. ay protection ci mbëri yi politiciens yi fii moo nekk seen kër. moodu moodi yi alors li tax rédaction seen seet si la mooy bëgg la xamle ak askan wi nga xamee ne du ñàkk ñenn ci ñoom am nañu soxla boo xam ni soxla nañu ko te gisuñu ku mel ni Mouhamed euh, Prince Benjamin boo xam ne dina la ci dimbali buñ la doon xamle ak askan wi lan mooy feebar yi nga xamee ni suñu borom def na képp koo xam ne yaa ngi koy yëg ci sa bopp wala ay gàllankoor yoo xam ni ku ko yëg ci askan wi mën na ñëw ci yow ak lan mooy li nga xamee ni xëy na yaakaar nga ni ku ñëw ci yow tamit daanaka euh, dala koy jéggal jarul muy ñëw ci yow lan ngay wax askan wi lu jëm ci li nga xamee ni nit ñi bëgg jëflanteeg yow lu jëm jëm li nga xamee ni euh, fa nga nekk. am na feebar boo xamante kenn du ko faju ak. ak an wor kenn du ko faju mooy maanaam. yow mënoo dem léegi par exemple nga nekk góol jëre sa xaalis bu sponsor jigéen bàyyi sa wa bu dugg eh, jigéen ci école ba mu jàng bu génni ci sa seen seen gis-gis yi ñun ñaar dinaa takkante nekk jëkkër an jabar après mu wooro la dem takk keneen. dañ nga def mariage bi mu neex la mais dinaa ñoo ba ci ju juru doom yow sëy nga dix ans amu doom nga xalaat yàlla dafa dof yàlla dofu kooku jërëñ ñaxam bu sponsor loolu ak la yow mënoo ëmb. mooy wor. wor an ak moo bon ci àdduna à part ak an wor n'importe fait ba bu ñëw fii nii dina ko faju à part ak en woor parce que ak en woor kenn du ko fajo hmm. mais am na séréné bu bëri boo xamante léegi nit yi dafa ñëw am problème su moom yor ak wax ko da ngaa ak dem ci diw di moom bal ma pro lu man def yow mais moom dinaa di non non sa yaay moo la def lii ou indi xaalis bi pour nax yow lekk sa xaalis gis ma xaalis boo xamante Sénégal dina ma fay ci dundu boo xamante musuma ko laar ci àdduna parce que damaa togg ñaari cin fonde bu tàng jër ku sotte ko moom naan aju moom faju na su man dem ci Serigne Abou Karim Mbacké moom di prince dañ nga dañ nga yokk ba nga yëg ko ci sa yaram Serigne mu taxa taal ci sama loko dañ nga tufli ci sama loko dañ nga yokk ba nga yege ko ci sa yaram comme lu man na mu hmm. su man jare ndokk léegi leer sama loko di ku am boppu metti sa bopp faju na nga naana ko jeex na takk man féticheur la mais c'est pas bu bon mais c'est pas ay fétiche boo xamante bu ñoom bu di ñoom jëre na coupe du monde dem Nigéria sama dëkk pour jëre coupe du monde foo ko jëre ku ko may sama papa grand roi de Nigéria man gisuma Sénégal dafa bëri tappale aduka c'est loolu laa am pour wax. alors message bi leer na Sénégal dafa bari ay tappale alors mu nekk tamit ñu baree bari ci askan wi loo xam ni soxal na leen muy lu jëm ci mbiru protection ak euh, li nga xam ne ni moom ngeen di wax en tout cas ouverture euh, de manière générale alors ñu bari ci askan wi góor nekk jigéen ñi ouverture pour xëy na am mariage wala ouverture pour am liggéey wala ouverture pour tukki dem jàngi et cetera et cetera ñu bari ci ndaw ñi loolu soxal na leen ndax képp koo xam ni tamit euh, soxla na loolu mën na ñëw jëflanteeg yow lu jëm ci loolu wala si fajar nga yem. Euh, bu ñëw ci protection dafa am jaaro fétiche pour protection ubbiyee ko caat an lamen ku sandiwu liggéey bu bon du egsi ci yow si yow gis sama la ko da nga xam ci dara bokku sëreen xeex na ma fii depuis temps man nekk sëreen fii mais kenn mënuma génn ci dëkk bi parce que dama tàll loo ko ci yàlla maay liggéey ci mbiri protection ubbiyee ko bayre sama bayre dafa saf nga am place sa affaire yi dara doxu lu yow dugg la ko du baax si yow ñoo fii nii dama laa may trois jours n'importe feebar bu nekk ci sa yaram dina ko dindi ko diggante trois jours. koo xamante bu crise bu daanu crise ji ne parce que am na ñoom boo xamante su ñoom daanoo nga di yëpp Sénégal yëpp ay rab la déedéet rab mënul daane nit crise nit lu daane nit crise nit mooy ji ne est-ce que yaay comprend mhm. mais am na feeba boo xam bala nga faju nit nga seeto ba pare xool lii lan moo waral lii parce que am na koo xamante bopp bii lu ko war mooy dafa asibru dama hôpital dem fajo mais bu dem ci sëriñ naxaare yi ñoom di non non lii liggéey la diw liggéeyal faju ko ba suba du deñ wakk ko sa xaaral ñu seeti sa ba pare bala man dugg ci feebar bi loolu moo ci nekk lu nekk fii la fajo ay protection ubbie ko ñu am problème kayiti ñu am problème tribunal ñu am problème police lu nekk la faju fii lu nekk protection loolu mbir yi su pour ku nekk song ma xool ci mbëri protection ànd eh, nekk roi des arènes ou bien pour eh, ci làmb xam nga loolu yëpp dolli la. Hmm. dolli dëgg la. léegi ku génn ci Sénégal tey di moom grande fétiche nangam nanga yow mosul liggéey ci mbër ci làmb comme yow ama dolli. loolu laa am pour wax. bu xaw a nekk lu fréquent léegi Sénégal xew-xew am rek ay seetkat wala ñoo xam ne dañuy mbubb woon ay seetkat lañ di yëkkati kàddu di wax ndax seet wala tradipraticien dafa am yoon boo xam ni fa la war a tënku wala da nga war a doon koo xam ni danga war a toog rek xew-xew am nga yëkkati sa kàddu wax yow nga nekk ci domaine boobu suñu borom may la ci ñan ngay wax ñi nga xamee ni Sénégalais yi jàpp nañu ne ay seetkat lañ te ñu ngi yàkkam ci dara xew ba ñu yëkkati seen kàddu ci loo xam ni ñu baree bari ci askan wi dañuy gis ni euh, amul benn rapport ak seen pour ñoom ñu war ci mën a wax. waaw am na ñoom bu di ñoom set seetkat la ñoom nekk ci internet bu duure man duma ma ci pétaw du ma seet ci ndox du dama seet ci vision eh, ku seet ci pétaw mun na ko jàng ci nit ku ma si seet ku seet ci ndox mun na jàng ko ci nit ku si seet mais vision kenn du ko jàng yàlla moo may. gis na ñoom bu nekk ci internet ta par exemple nga du nekk ci internet bu wax ay mariage jàmm mais bala bala nga gis vision sey boo xamante moo tagu un mois ma sëy boo xamante yow yow an kooku bokk woon ndayam mbaye kooku ñëwu ci yow di yow seetal ma pour man xam sama sëy bi nga génn ci internet commencé wax koo yàpp lii yàlla wax naa la fu fu mu ko wax yow dafa la ko yónnee ci voice message ou bien dafa la dafa la yàlla dafa la ko wax ci rappelez moi xam nga am na ñoom boo xamante ñoom dina waat barki Seydina Muhammad lii lii sàcc moo ko da nga jàpp nga ko ci lokom de mais ci lokom leere na la moom moo ko sàcc lii loolu moo tax tribunal du gém dara ci doom adama ou bien police setkat yi boo xamante bu nekk ci internet yi bu dóori li yow nu si yow mënu gis nga dem te wutali géel bay nekk ci internet bu bu nax doomu adama parce que loolu yëpp amu amu amu njëriñ ku indi yow xaalis tay nga lekk subo mu nga nekk yow dootu am xaalis pour fay location nga ñibbi si dëkk ba nga ñibbi si village nga commencé sonn nga di ñoom liggéey kenn liggéey yooyu yaa liggéey sa bopp parce que yaay wax loo xamante amu loolu la am pour ñoom bu ay fu setkat yi bu nekk tay bu di par exemple léegi làmb boo xamante takkaw gu nga di da ngaa gis yow loo gis loo xamante takkaw gu ci vie mënu yow mënu ko gis ci spirit am na loo xamante balaa affaire yi affaire boo xamante dinaa indi problème yàlla mun na la ko wan di génn leen saraka bu mel nii pour problème bi bañ a fen jeex na tak yàlla mënu la may par exemple lii iPhone 11 la yàlla may yow moom xam na téléphone bi dina la indil problème du la ko may. danga liggéey ba son yow du ko am nga di ah kii xanaa xanaa sama vie dafa dafa dafa nekk difficile rek yàlla xam na su yoo amee iPhone 11 bi dinaa la dugg ci problème loolu moo tax du la ko may. nga di sama morom yi ñoom am na xaalis man aw ma xaalis su ma mayoo xaaliseeru moom may sa morom moom mun na nga dee avant sa temps hmm. lu yàlla am na lu yow dinaa def tay nga di eh, lu man def tay bii akal bii péché la du péché ci ci kanam yàlla par exemple léegi fii lii kese yow yoro nga jëre ko may nit péché la ci yow parce que yow amu après nga commencé xalaat foom man dinaa jëre beneen yàlla du la sa faale nga jëre lu yow am boo xamante loolu kese yow am pour plaisir prince loolu mënul nekk péché la ci yow loolu bokku ay ñoom bu di ñoom seetkat yi da nga laaj ñoom fan ñoom commencé seet bi de ñoom dafa ko commencé ci seen maam heure ñoom nekk xale ou bien ñoom dafa jëkka-jëkka di ñoom seetkat la mais euh, suup boo xamante dinaa neex de de de ci ci air bi bu génn ci suup bi da nga xam neex bi loolu moo ci nekk alors ñuy faral di gis tamit ñenn ñoo xam ne dañuy toog rek naan ñu ngi ñaan nguur gi mu def sarax nangam am na luy ñëw ci dëkk bi am na loo xam ne war nañ ko def nangam coow dina am nangam ak nangam loolu lu bokk ci seen liggéey la danga koy saxal wala da ngay gis ni tamit xëy na ay santiment yu nit ki di am la rek. damaa gis avant damaa gis démbo damaa gis tay mais bala man wax dina ko xooraati des fois xooraati trois fois bala wax parce que du ma jëkke jëkke wax su ñoom ñoo fi man di eh diw def na lii moom di gis na ko kay tey du ma wax loo xamante amu ci seet su man lu man wax yow tey ci set da nga ko gis lu mu yàgg une semaine da nga ko gis and da nga woo di prince sere Mohamed gis naa seet lu yow waa ko man avant am na ñoo xamante ñoom dinaa ñoo ci yow pour xam sa xam-xam mais lu si yow seetalu ñoom yow gisoo lu ñoom bëgg dégg comme ci yow yow waa ko dara loolu moo ci nekk damaa gis. yàlla may na ma ci loolu loolu moo nekk sama premier set ak ma koo mën eh, c'est pas pour man jaay sama bopp mais man xam naa lu man lu man xam. loolu moo ci nekk par exemple léegi tey mhm. man di dinaa def yow nga nekk milliardaire dinaa def yow nga jënd oto ki yow amu oto bala nga def nit defara nit pour moom am oto yi da am sa oto bu pare yow amu oto nga de da nga ma defara ñaan man am oto an yow sëriñ nga foo ko teg ah? bala man defar yoo léegi nga am oto dinaa defar sama bopp bu pare man am oto nga indir ma addi oto comprendre mm. mais man amuma sa vélo man di de jukuma xaalis bu mel nii dinaa la donné yow beneen cuuraay boo xamante deme deme nga jënd oto loolu yëpp ay fen la ban cuuraay ku ko defar <laughs> alors Euh, Mohamed euh, Prince euh, Benjamin di marabout di voyante di tamit tradipraticien de manière générale ñu fekk ko fii si fii si Guédiawaye alors Mohamed ñu bari ci askan wi du ñàkk dinañu la soxla ku nekk bitim réew xëy na bi bi maanaam soxla nga seetal ko forcément dafay soxla mu ñëw wala par téléphone tamit lépp lu waaye soxla rek mën na si jokkoog yow via téléphone WhatsApp wala yeneen ak yeneen wala yow sa liggéey dafay aju rek nit ki présenté wu wala mu yónni kenn wala. ñu nekk bitim réew seen seet vingt cinq mille francs ñu nekk fii Sénégal 5000 francs jaroo nga yoon a kenn sa tur an sa santé soxla ma sa turu sa papa soxla ma sa turu sa yaay sa tur an sa santé ma dan 10 mu wax yow lu ci nekk ku nekk fi Sénégal nga toog jàkkaarloo ma mu wax yow lu ci nekk ci loolu laa yëng mais ku di yow euh, may ma deux jours bi may may ma 24 heures de temps ou bien man fanaan avec sa tur lu su ma mënul a gis léegi duma la gis su ma bëgg man naraw ba suba kooku bu di yow dinaa fanaan avec mais yow si yow nekk seetkat dëgg-dëgg si nit ñoo nga jaakaaro ko di euh, deux minutes dañ nga ko gis amu koo xamante léegi dina génn tay di kenn mënu ko gis yow du yàlla yàlla kese kenn mënu ko gis mais nit mun na muuru boppam nga dem ci seet dina difficile pour gis la mais si yow ñoo fii dinaa dindi muuru bi gis la parce que ñun moo muuru nit waxtu waa ngi xëccu jëm ci jeex boo ñu doon tënkal rek ci li nga xam ne ni xëy na lu baree bari ci ñi nga xam ne ñoo fi ñëw di la seet si li ñuy jëflante ak yow xëy na ñu ci baree ci bari ñoom dañu naan alquran laa lay jox ak yeneen ak yeneen moom li muy jëflante ak nit ñi sunguf la ay reen la wala ay secret yoo xam ne moom daf ko doon ci ay maamam euh, moom lay jëflante ak askan wi wala. am na ñoom boo xamante ñoom dinaa dem par exemple comme Thiaroye am na ñoom boo xamante bu jaay ay sunguf ou bien bu jaay ay bant. Hmm. ñoom dem jàng jënde ko jeex na su ñoom jënd ko ñoom commencé jaay ko noonu dara du dox de bala nga faju nit yi par exemple gis na garabu ngóol yi man maa ko toog dama ko toog ci cin pour ngóora garabu lii yaay gis ay ngóol la koo xamante affaire yi mu dégré wu dellu ci ginnaaw am na ñoom boo xamante seen affaire yi comme banaana la hmm. ou bien ñoom mënu nekk une seconde seen jabar salaamaaleykum maaleykum salaam daana na loolu yëpp laa faju fii nii est-ce que yaay comprend mhm. nga ñëw ci ay sungufu bayre yi nga ñëw ci bagage boo xamante ba toj liggéeyal ku nekk ak lu mu sànni lii yëpp man maa ko liggéeyal lii yëpp man maa ko jëre Nigéria est-ce que yaay comprend dama ko jëre Nigéria liggéey ko liggéey ko bu dindi ay saabu mystique yi bu dindi lënd man maa ko liggéey seen bi léegi ku ñoo tay di yow nangam nangam patati patata def na li def na li gis na lii yëpp man maa ko liggéey may ko dolli lii yëpp ay bagage mystique la man maa ko liggéey may ko dolli est-ce que yaay comprend loolu moo ci nekk mais de gis na grave bi man maa ko tooga ku nekk am lu mu faju n'importe liggéey nii ci Sandio dina ko faju fii protection ubbie ko jaaro yi gis nga ay ay gaalaaji gis nga ay béjér bu am saytu si yow Soroka kenn mënu la liggéey jàpp la kenn mënu la liggéeyal foo xamanteel caat a lamiñ kenn mënu yoo dara comme sërëm bu màggee tey est-ce que yow xam nga euh, fu ñoom tudd ñoom chaque jour ku nekk tudd ma chaque jour euh, fu sama tuuru def chaque jour su man amu gaalaaje tout temps dina defee tien <laughs> tien protection euh, bayre boo xamante amu protection ñoom dina la tudd ba nga dee mm-hmm. voilà loolu moo ci nekk ci lu tënk ban message ngay jëmale ci sénégalais yi ngir ñu mën a am ràññee ci ñi nga xam ne xëy na dañuy ñëw pour jàppale leen ci li nga xam ne ñu ngi koy soxal ak ñi nga xam ne xëy na naxaate wala leneen lañ ci jublu ci lu tënk ñu jeexal émission bi. man kay am na euh, kii sama moodu moodu bu nekk bitim réew. Hmm. si yow woo ma pour man defar yow ñaan. man yow sa famille mii Ndakaaru nga di waa man ne yónnee beneen nit pour moom ñoo jël sa bagage parce que yow mënoo yónnee sa xaalis après am na ñoom boo xam séréer boo xamante tay bu yónnee xaalis après nga di euh, grabo grabo sa yow du ko jot moom di moom dina la sandri euh, ñaana bi ci air foo ko teg kooku dafa war a sangu yaram bu bu tilim tilim moom du ko sang yow du ko sangu takk ko gaalaaj nga di yow da nga ko sang sandi ñaan ci air moom fay naa la cinq cent loolu moo tax euh, bala nga dem ci fa yow jaakaaru ko woo ko appel gis naa sëriñ bi woo ko appel woo ko appel vidéo sacrifice ba moom di def la dinaa la defar su ma defar ko moom wooyo appel vidéo nga gis ko euro mi doo ray ko par exemple ku man defar sacrifice nag tey su man dem marché pour jënd ko dinaa ko woo su man dem foora sama client ñoom xam na loolu dinaa la woo appel vidéo nga gis ko mu wàcc ko ba ci buntu bi euro may ray ko danga ko gis dinaa la woo appel vidéo nga nga gis ko ci loolu laa liggéey ku nekk def très attention parce que naxkaat yi dafa bëri fii bu ñoom bu di ñoom fétichel la. mbégte kontante la woon ñuy àndoog yéen di fàttali rek di ko ñaanal ABC compagnie Aziz business compagnie di ko ñaanal yàlla dooleel ko ba lépp loo xam ne mbébét la bu ma am ci réew meek euh, tolluwaayam ak njabootam ak huile j'adore incha allahu rabbi fas yéene leen a gunge ci màggal gi ak la chaîne des leaders dig daje beneen jotaay fi amanillah